السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلتي مبكي سنغال نوني فيتي جاكساو بمام شيخ الحاجي مالك رضي الله عنه بوكك جتايبي نجابور جو فتبارك الله تي واجال لغي بو خامتاني gannaaw bañ ci amee ndigal ci suñuy kilifa ci lañu bëgg soobu ci ndimbalal yàlla ak yërmandeem ak kàttanam ak coobareem muy waajal gàmmu Fass Jaksaaw ñu jàpp bés bi date bi le 8 février waaye dafa mel ne ñaari fan lay doon insha allahu taala muy le 7 février 2020 ak le 8 février 2020 buñ ci yàlla yóbboo ak jàmm la set ba gannaaw julli tàkkusaan ci ndimbalal suñu boroom dina am xadaratul jumaa bu ñu def ànd kook mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yépp ak kilifa yi nga xamante ni dinañ ko présider ci kàttanal suñu boroom bu ñu paree ca xadara ba tamit julli timis du ñàkk kenn ci njaboot gi am trente minutes wala ba quarante minutes waxtaan aslëf ci wàllu suñu diine buñ ca paree incha allahu taala ah fanaan ba ëllëg sa samedi ci suba muy lawit 8 février dinañu jàng alquranul karim dinañ fi joxe tamit ay dok yu am solo ngir zikkar ko sante ko yàlla jamo ko yàlla ñaan yàlla mu defal ñuko muy suñu hadiya ci ruh sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lépp lu mu jabote ak mbokk yonentam yi ko fi jitu won suñu tidiane ash-sharif al-fatimi radiyallahu anhu ak njabotam ak muqaddamam ak khulafa'um ak mbooleem kilifay tariqa bi waye ak mbooleem kilifay l'islam bi rawatina suñu mamu leer yi ñu yàlla baaxi ci rew mi yéene waale tamit suñu way dawee jullit ya nekk barzak yëpp ak ñun ñu fi desandi fa tabaarakallaahu yàlla nangu ah nuy yëkkati na kàddu yu nuyoo ak ziyaara di ko jëmale ci mbooleem kilifa yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu bokk seenu bokk ba noppi bokk mission bi te mooy séq ëttu këru diine ji ñu jël lépp teg ko ci loxo suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu soppe sëriñ Babacar si Mouhamadinil Mansour xalif général de Tidiane ak mbokkam yim ko bokkal yépp ci alxadratul malikiya waaye ci xadra lislaam bi yépp buñ ci tuddee ku mel ne kilifa ku tedd gu baax gële ca suñu dëkkumaam bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke di xalif général de Mourides ak mbooleem loo xamante ni maam Cheikhul Khadim jaboote na leen wala ci gàttal ma ni maam Maaram jaboote na leen te booy seet Sénégal yemul ci ñaari kër yooyu rek kër yëpp ñoo bokk seenu bokk ci ndimbalal suñu boroom bokk itam mission di xëy ci waaru yàlla di ca gont roy ci seen jëwriñ muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kilifa yooyu ñu ngi leen di beral nuyoo ak ziyaara di leen ndokkeel ci xew-xew yi di leen massawu bu baax a baax a baax ci xew-xew yi tamit waaye yàlla bu mu yem foofu yàlla na ëmb Sénégal yépp góor ak jigéen mag ak ndaw fàttewuñu tamit nuyoo bi sar dem ba ci suñu ay autorité te ki ci jiitu tey di président de la république di Hadji Macky Sall ak lu mu jabootee waaye ak mbooleem jëwriñam yi nga xamante ni ñu ngi nekk sur le terrain di ko jàppale di ko dimbali ci liggéeyal réew mi ak askan wi ñoom itam ñu ngi leen di beral nuyoo ak ziyaara di leen ndokkeel di leen masawu ah gannaaw loolu nag kàddu yi ab woote la waaye ñun wootewuñu yàlla ak yonentam ñoo woote yàlla wax na ko ci alkuraan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 ما يبربو الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه وخنا نوني جاكساو ما مودو من كوغور 1904 طلوك غنك ادونا باي الحاج عبد العزيز دباخ رضي الله عنه غوركو نك في اندكي بوكم اكوكو يالا بولل لا تخون مو غوركو تامي دغناني ماك ني تنكون نانيو تروي te mooy jaju ba jàng te mooy xamlu ak xamle julli ak bépp xeetu jaamu yàlla boo xamante ni jaam bi mën na ca jële ngërëmal boromam fi dunya wa fil axira ak mbay bu ñu nee mbay nag métier la liggéey la waaye liggéey tamit ak métier ëmb na lépp loo xamante ni rek war na mën a concerner nit ki ci dundam mu man di ca defi xëyam ak i gontam man ca jëlee lu mu sàmme ngoram ak diineem dindal njabootam dimbali leen dimbali ay bokkam kon barab bi looloo taxoon boroom sos ko fa tabaarakallaahu ci la nekk ci loolu ba demam jot mu dem fa tabaarakallaahu taawam ba Baay Seydi Ahmad Si radiyallahu anhu ma des Salonique miin na barab bi lool bëggoon ko lool waaye itam xalifaam ba دي سرين بابا كرسي رضي الله عنه يلا يلا دولي ليرم موميتم جاك ساودي فاس جاك ساودي بربم موك باي الحاج محمد المنصور رضي الله عنه دي ركم دي لبم بسين دم جوت نو دم نو باي في سيني رك دي الحاج عبد العزيز سي دباخ رضي الله عنه أكباي الحاج محمد الحبيب سي رضي الله عنه أجمعين كل خمباي عبد العزيز دباغ dégg nga jag saaw boo déggul jag saaw boo xamul jag saaw dégg nga ko boo ko miinul tamit dégg nga ko fi waaye ku xam Baay Muhammadul Habib si tamit radiyallahu anhu dégg nga jag saaw wala nga xam jag saaw fa tabarakallahu ci bàyyi xel guñ ko bàyyi woon xel fonk guñ ko fonkoon di roy la fi seen wayjur sosoon ak la taxoon mu sos ko te lépp delluwaat ci diine lépp delluwaat ci roy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko suñu boroom waxe ci alquran ngir ñu roy ko ndax mooy royukaay bu mag bi te ku ko roy sa àdduna defaru sa laaxira defaru yal nañ ci yàlla boole jagsaaw googu nag moom la bésam ñëw ci bëgg-bëgg boo xamante ni Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz masul dañ di ko bëgg gàmmu Tiwaawan daan na jot sax léeg mu jox Tiwaawan seet njaboot gi ziyaaranteeg mbokk taalibe yi waaye dellu siwaat fii ci Jaksaaw muy fan yi burdu ba ak bésu gàmmu ba ak waxtu yu dul yooyu mujjoon na ci dundam fu mu lu mu teel teel su xëyee lu mu guddi guddi dina dellu si Jaksaaw lu mu guddi guddi tamit bu demee ci mission su ca paree rek dellu siwaat Jaksaaw ba tax na kon ah Jaksaaw barabu yàlla la ci barab la ci barabu yàlla yi di barab bu yàlla barkeel yàlla nañu yàlla nëq ci biir barke boobu ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi toog ak nag njaboot gu tedd ànd ak ñun bokk ak ñun ci liggéey bi ñu àndandoo yëkkateendoo tegandoo xam naa ni temps bi du ñu may ñu lim ñëpp ñëpp waaye du ñàkk ñun ci war a tudd di ay kilifa tamit di ay bokk teew fi Cheikh Ibrahima fay mu baax mii nga xamante ni professeur la ci IAM waaye professeur la tamit ci ëttu lislaam bi professeur la ci ëttu mbokk gi waaye professeur la ci réew mi ci ay waxam ci ay dundam dundinam ci ay jëfam maanaam ci gàttal jikkooy puso la ame day boole waaye du fekk mukk fu ñuy takkalee lu mu yëg ni nar na takkali dina ca taxaw lu mu yëg ni tamit xotti ko xotti ko am na fa dina taxawaat ba loola ñu ñëw ko fa tabaarakallaahu ba mu delluwaat mel na mu meloon kon kooku jataayam ci suñu biir dañ koy bégewoo waaye di ko ci sant di ko ci gërëm di ko nuyu bu baax di ko dalal ci këram ak biiri bokkam fa tabaarakallaahu ku ko xamul tamit di nga ko dégg mbaa nga gis ko xàmme ko ci média bi ci télévision yi waaye ci ëttu diine ji fu ëttu mbaax tànt daa ko fa fekk mbaa nga fekk fa ndawam au passage ñu ngi koy ñu ngi jël nuyoo yu tedd di ko teg ci loxoom yu tedd yi mu joxal ñu ko way jur bu baax wee ca Cees di Serigne Salihou Touré ñu di ko nuyu di ko seet ci yaram wi te di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi yàlla dolli ko wér ak kattan defal ko njaboot ga yëpp Ibrahim ñu ngi lay nuyu ci turu xalifa bi ak turu kër gi sa kër maam Cheikh Al Hadji Malick yëpp waaye turu ak sa mbokk yu baax yëpp nga bokkal jataay bi particulièrement turu Jaksaaw ñu nuyu itam mbokk bu baax di kilifa di professeur ca université bu Thiès di ingénieur ci wàll yu bëree bëri di borom xam-xam di Seydi Maqaaliba moom itam mi ngi ci jataay bi ñu ngi koy jox wàccuwaayam fa tabaarakallaahu te itam nag sallallahu alayhi wa sallam am na lum ñu digal am na lum ñu jàngal ci boroomi xam-xam nu ñu war a jëfe ak ñoom nu ñu war a comporté woo bu ñu nekkee ak ñoom kon xaaji Maqaali bég nañu bu baax ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la dalal jàmm ci sa ëttu kër maam ci sa ci sa biiri bokk yàlla na yàlla nangu lépp ñu ngi fi toog ak suñu mag di borom jagsaaw di jëwriñ ji di alxaaji omar ñang mu baax mi omar moom defe naa ni ku xam jagsaaw mbaa nga dégg jagsaaw xam nga ko dégg nga ko ñu di ko nuyu moom moo taaral jataay bi mooy kilifa jataay bi ci ay kàddoom tamit la ñuy yëkkatee kàddu ñu ngi toog ak tamit fa tabarakallahu sëriñ Babacar Gueye ñu gën ko xam ci xalifa Gueye mu suñu bàyyi alxaaji Ahmad Buya Gueye mu soxna Nafisatu Diop mu suñu bàjjan soxna Aïchatu si bintu Cheikh alxaaji Malick radiallahu anhu ajmain fa tabarakallahu moom itam mu nekk ci xadara bi nekkal fi xadara bi nekk ci daara ji nekk tamit ci mission bi ñu bokk liggéey bi mi ngi toog suñu wet ci jataay bi papa Abdoul Aziz Diop duñ leen ko présenté fa tabaarakallahu ba alxaaji Mouhamadul Mokhtar Diop bu bàjjan aseetu bu Cheikh alxaaji Malick bi ma tudd léegi moom itam ci wàllu communication ci Fass Jaksaaw wala ci xadara kër gi wala sax lépp loo xamante ni itteel na réew mi miin nañ ko fa tabaarakallahu miin nañ tamit xar kanamam ak taxawaayam moom itam mi ngi toog ci jataay bi xaaji Yusufa Kase di doom ci kër gi mi ngi fi fa tabaarakallaahu Abdul Aziz Cax di sama jaam boo xamante ni fukki at a ngi nii maa ngi koy jaay amaguma ci prix maye naa ko ñu delloo ma ko <laughs> waaye nag jaam bu am njariñ la ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara moom itam di di bokk ci jëwriñu jagsaaw yi fa tabaarakallaahu mi ngi fi rawatina nag suñu mag al muqaddam xaaji Mouhamadul Mansour Ndiaye ah di doomu góor gi nekkoon chauffeur nekk loxoom nekk léppam. Mansour moom kenn dootu ko présenté te fa tabaarakallaahu waaye fi ma jëm nag moo di suñu mbokk yu baax yi nga xamante ni ñoo bokk lépp ci biir ak ci biti waaye ñuy yëngu ci ci liggéey boo xamante ni bu amul woon neewuma àdduna du jag neewuma àdduna du agsi fii mu agsi waaye gàcce ngalaama ñoom ñuy liggéey ci wàll communication ñëwin bu rafet jàppale ñu assisté ñu bokk ak ñun xew-xew bi nga xamante ni ñu ngi ko jublu amuñu seen fay yal na leen yàlla fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nag si le terrain ci ay coono ak tamit xew-xew yu bari guddi ak bëccëg foo dem dang leen fa fekk kon askan wi yëpp ameel nañ leen njukkal amuñu seen pay nag yàlla mi nga xamante ni tëlewul dara yàlla moomu lañ leen di bàyyeel ñaanal leen gudd fan ak wér surtout ak kaaraange waaw tey jaan tey ñaan sama bopp di ñaax sama bopp ñaan askan wi ñaax leen ñu mel nii nañ leen jox seen gëdd luñ leen mën a jàppale tamit nañ leen ko def ci feguwaay ci kaaraange ci lépp rek ñu ngi ñaan itam lépp loo xamante ni moyen la yàlla leen ko yàlla màngal jox leen ko mën nañ ci tudd fa tabarakallahu sëñ Cheikh Anta bu TFM ñëpp xam nañ ko macha allah Thiès mën nañ ci tudd Hadji Mbay Samb bu nekk Thiès 24 journal As moom itam fa tabarakallahu kenn réere wu ko ñëpp xam xam nañ ko Hadji Babacar saw moom itam bu Sud FM Hadji Ibrahim Diaw bu Dakar Actu rawatina sama sëriñ Hadji Ibrahima Ndiaye bu Thiès web fa tabaarakallaahu suñu jigéen suñu soppe soxna Ndeye faatu Niang bu quotidien journal quotidien rawatina Hadji Daouda Ka bu Sediprom fa tabaarakallaahu ak nag ki leen dalal di seen mbokk te nekk ci Tiwaawan bu maam Cheikh Alxaaj di dëkku maam Alaaji Malick bi di suñu frère di soppe ñu bokk yarondoo bokk daara ji bokk lépp muy xaaji Babacar Mbuub mu baax mi nekk Albayaan FM ci ndigalu alxaaji Abdul Aziz si al amin yàlla nañ ko yàlla fayal bëgg yaa koy kañul sa bopp sëñ Abdou yoon woowu la am ak kilifaam yi ko jiitu woon rawatina ba ci kilifa gi kilifa gii ko wuutu tey yàlla na yàgg lool sumbam yëpp mu mottali ko ci kaw dund ak fekk ak tal di suñu kilifa di suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mouhamadinil Mansour ñu di ko def ak ñun at mu jot niñ ko waxe fa tabarakallahu ñu di leen ñu yeesal ngërëm ak cant bu baax ci seen taxawaay te itam laaj na tamit lu mel ni buñ ci jubloo wala loo xamante ni dafa dafa itteel réew mi wala askan wi fa tabaarakallaahu nga am mbokk yu mel nii ñu ñëw ànd kook yow taxawu la loo ca mën a leeral itam nga leeral ko ba ñu bari man ci ràññee man ci xàmmee man ci jële tamit loo xamante ni dinañ ci leerlu man ci leeralal keneen su ko defee kon mbokk yi woote baa ngi noonu ah li ma bëgg a wax daal man sama bopp taxuma waxuma waa Fass Jaksaaw waxuma الحضرة المالكية وهما واتيوان وهما واسنغال وهما وادنا واي لي ووتي الحاج عبد العزيز سيد باخلا كما سخول ويسينا لنغير يالا تي بير اك تي بيتي كون بوك امنا ياكار ني بو فكنتني موم ووتي نتا يالا تخ ووتي لول بوبام يالا تخ موي ووتي اك رسول الله képp ko amul contrainte amuloo ngant dinga ñëw wuy si ci woote boobu kon ñu ngi woo kilifa yëpp ñu ngi woo njaboot yëpp wu du ma ni ñu ngi woo taalibe tijaan yi wala dara ñu ngi woo umma islamiya te dafa am édition bi dafa nekk édition spéciale ñu jël ko cërale ko suñu kilifa di suñu soppe di suñu lépp di sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbakke mi fii tey maam borom Touba ci kaw suuf yàlla na yàgg lool di ko ñaanal moom itam lépp lu mu sumb ak naal bu mu fi mën a fekk yàlla na ko àggale ak sagoom ci kaw dund ak fekke ak tal kilifa gu baax la ci biir ak ci biti wax naa ko keroog benn mbokk nee naa ko bu la yàlla mayul chance ngay kuutaayu léeg-léeg jataayu kilifa yi doo leen xam waaw doo leen xam waaye fa tabaarakallaahu ni ngi leen di séene sopp leen seen biir moo raw loolu yàlla nañu leen yàlla fayal kon bés yi di bésam fa dem nañ fa seeti ko ak délégation ci njaboot gi mu dalal ñu sargal ñu teeru ñu taral ñu bég lool waxtaan ak ñun wax ñu ne lépp man ngeen fa wuutu di ma ko defal kon boo gën naa amati beneen mbégte tiim seen baax mu ne lii am soññi la ci ñun waaye loolu pour ñun la waaw ndax ñoom ñooy suñu royukaay waaw fa tabaarakallaahu bañ fa joge dem nañu kër sëriñ aboo bu baay fadilu kazalik bañ fa jógee dem nañu suñu kër soppe di suñu mag di suñu lépp di suñu xarit sëñ abdou samad bu sëñ soaybu bu baay soaybu mbakke fa tabaarakallaahu moom itam kazalik tuuba fudul Touba sax amuñu fa frontière ñaanuñu yàlla am ko fa ba ci église bi ñaanuñu yàlla am fa frontière allahuma lu dul lu yàlla tere ak lu ngor bañ ak lu sunna bañ rawatina nag ëttu këru diine ji waaye ci biir ëttu këru diina ji rawatina ëttu maam Cheikhul Xadim mook mbokkam mu baax mii di Cheikhul Xaaji Malik du ñu ñaar kenn lañu du suñu def def du seen def def def defu yàlla la firndeel na ko rek samedi passé di le 25 sëriñ Bachiru Abdul Qadir bu maam Cheikhul Khadim amee baatu sëriñ Mouhamadul Muntaqa amee baatu kër suñu maam Cheikhul Khadim ñëw na fi ak une forte délégation te yàlla tax ku ne xam na ni claudine yem chargé na jot amul. yàgg na bëgg teew si fi ci bés bi waaye toujours dafay fekk mu dëppook ay mission yuñ ko chargé bareen mu ne ma maa ngi ci sama yéene ba de waaye dinaa xool sama calendrier bu fekkente ni dafa dëppoo ak sama tournée bi may def Mauritanie incha allah fas naa yéene daal balaa bés ba dinaa jóg ñëw ba la le 23 la vingt 24 mu woo ma ne ma ndax samedi ci ngoon dina baax ma ni ko Mbàkke lu baax ci yow rek baax na ci ñun waaye mu woowaat ma ne ma dinaa la confirmeel ndax xalifa bi woone ma léegi sëy sëñ Muntaqa ñàkkul fu ma war a mission waaye les tuut mu woowaat ma ne ma confirmé naa dinaa ñëw incha allah ba muy ñëw itam kenn desul waaw sëñ Mamoun Bousso al imaamu ratib ñoom sëñ Moustapha Diatara ak ñoom sëñ Galas Kaltoom bàyyiwul kenn ci kër ga ëtt boobu ñëpp la àndandoo ñëw màng ay teraanga indi muy ñëw boo xamante ni tamit yàlla xam na ni yëgaluma ko sax tund wi waaye dañ ko corfati nit ñi ñëw ak seen taxawaay ak seen cofeel ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen ci ndokkeelaat ñëw fi daanaka ay 18 heures 30 ba 22 heures 30 fa tabarakallahu au passage ñuy santaat Serigne Mouhamadul Bachir ci jéego yi nga xamante ni nee naa ko keroog mbakke dina bari ñu mu neex lool waaye dina am ñoo xamante ni tamit du leen neex waaye ñun lañu itteel mu neex jaami yàlla yi ndax neex na yàlla neex na rasulullahi neex na mam borom Touba neex na mbokka mi maam Cheikhul Xaaji neex na itam suñu ñaari kilifa yi yàlla boole ñu nekk suñu kanam ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah di gërëm mboolem njaboot gi mu àndaloon bu baax a baax waaye au passage di ci gërëm suñu mag suñu soppe di suñu sëriñ sëriñ mouhamadul mansour si dabbaax ñëw wuutu kilifa yi ànd ak rakkam yëpp ak waa xadra bi yëpp fa tabaarakallahu ñëw teeru lañu suñu dumani gan ndax nee naa ko bi nga ñëwee rek dañu waroon takk suñ diggu ñun génn ne la daara jàngoog kër gaangoog jàkka jàngoog lépp ngoog fa tabaarakallaahu su ko defee loolu ñu di ci sant ñëwam yàlla na doon yiw yokk ci réew mi yàlla na ci xol yi bennoo te sax nag ba faw a faw yàlla na doon koom-koom ci réew mi waaye surtout jàmm surtout jàmm surtout jàmm mbokk yi nañ góor góorlu di wax jàmm te di ko wax te di ko jëf te di ko jëflante jàmm ci la lépp xaj fa tabaarakallaahu su ko defee kon mbooleem ëttu kilifa yi fa tabaarakallaahu seeti nañ leen waxtaan ak ñoom sàkku seen teewaay wala seen teewaayu njaboot ndax njaboot gi yëpp benn la senegal daal bàyyiwuñu kenn thème biñ ci nar a jël waxtaane ko ren mooy luy boole unité ndax sëriñ Maodo si suñu sëriñ bu alxaaji Abdul Aziz Dabakh damay dégg muy faral di wax ni yàlla rek moo mën a wéet lu ko soob loola di am te kenn du ko ca fekk soxlawul ndimbalu kenn te nam ko bëggee lay amee ku dul yàlla mbindaafoon nga mbindaafoon bu ne soxla nga tàllal sa loxo sa mbokk mbindaafoon ngeen jàppante jàppalante yëkkateendoo tegandoo kon mbokk yi unité ci la lépp nekk seen mbokk mi ne woon fii di Cheikh Abdoul Aziz Dabakh mission yëpp loolu la woon fa tabarakallahu yàlla nañ ko yàlla fayal su ko defee kon loolu mooy temu gàmmu gi ren ah insha allahu taala ni ñu waxee programme bi xadaratul jumaa bi ajjuma suba ga samedi jàng alquran joxe ay dog ñaan def pause def yëfi njóobeen ak njaayeen su ko defee 16h fas nañu yéene cérémonie religieuse bi tàmbali ci ndigalu ak teewaayu xalifa bi Serigne Babacar Mouhamadinil Mansour ak ak i rakkam ak njaboot gi yëpp yal na leen yàlla indi ci jàmm ak teewaayu ëttu këru diine ji waaye ak teewaayu tamit délégation officielle bi nga xamante ni ñu ngi yaakaar ni dina bàyyi ko ci ndigalu. président de la république alxaaji Macky Sall ak gouvernement ñëw associé ak ñun bokk ak ñun xew-xew boobu yal na leen yàlla indi ñoom itam ci jàmm bu ñu paree ci cérémonie bi dinañu noppalu gannaaw julli gee gàmmu gi ñu ngi koy defee ca Faas suñu sëriñ di suñu kilifa sëriñ Babacar si Dabakh moo koy diriger jiiti ko ànd ko ak njaboot gi ak mbooleem waa dëkk bi ak waa tund wi ak jullit yëpp ak jaam yàlla yëpp ña koy way mooy waa kër moom Moussa Ale ak waa kër mam daaw daw daaw góor Baye incha allahu taala ak képp koo xamante ni yàlla boole na la ci. am na tamit consultation médicale gratuite boo xamante ni at mu jot dinañ koy def suñu ay mbokki docteur di ay wëllëre bàyyi ko ndakaaru ak fune daanaka ci wàllu spécialisation bu ne dina am bésu keroog bi muy ajjuma ak samedi ñu di ci woo tamit mbokki tund wi mbokki dëkk bi ak jaami yàlla yëpp am noonu ne ñu yéene defaale ci maye deret waaw ndaxte tamit loolu ci la bokk hôpitaux yi soxla nañ ko kër docteur yi soxla nañ ko ñu ngi ciy woo ñëpp su ko defee loolu tamit ñu ngi ñaan fa tabaarakallaahu ci ni ñuy dëkke toujours ak suñu ay autorité bari na yuñ fi doon jàmbat di ko ñaan di ko sakku mën naa ni lu ci bari réalisé wu na bu dee wàllu matériel agricole fa tabarakallahu président yónnee nañu ko ñu ngi ko ci sant di ko gërëm lu ñu gënoon itteel tamit bokk na ci muy deuxième forage bi ndax forage bi fi nekk ci jamono baay ab depuis 83 la woon te forage ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na dem ci dañ ni bu amee 30 ans rek bàyyil xel ni mën na xëy xëy taxaw waaye yàlla baax na loolu tamit fa tabarakallahu yaakaar naa ni njiitu réew mi joxe na ci ay instruction ba kilifa yam ci joxoon digal contacté nañu yebal nañ fi ay ndaw ay technicien ba ñu ñëw bind def rapport yëpp ñu ngi am yaakaar a ah, waaye di leen ci soññi ndaxte ndox moom leneen la di ñaan yàlla yàlla sottal yëpp te yàlla yombal lépp jàppandal lépp ci wàllu tamit kër dog ñu ngi ci ak lu jëm ci wàllu ambulance ak lu jëm ci wàllu matériel ak tamit bu li mu docteur yi mënee yokk ndaxte Fass Jaksaaw dëkk bu rëy la dafa bari te loolu bu amee day gën a yombal ngaay mi nga xamante ni district bu ngaay moo yilif bu fii rawatina bu tuwaawan rawatina bu thiès wala feneen dañuy ñaan sax ñu dem ba am hôpital niveau deux fii ci dëkk bi insha allah lu jëm tamit ci wàllu daara ji ñu bëgg ko taxawal insha allah jublu ci muy institut islamique boo xamante ni internat lay doon doomi sénégalais yi di ci ñëw di fi gëstu di fi jàng di fi jàngale loolu tamit ci ay suñu ay projet la bokk insha allahu taala ah yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu ci ndax kat loolu mooy asaas mooy fondement bi nga xamante ni maam alaaji Malick taxoon na mu sàkku fii ba am ko sos ko muy daara fa tabaarakallaahu ci wàllu ambulance am na njaboot gu nekk bitim réew ñu ngi ci xaaru état bi xam naa ñu ngi ci waaye am na tamit njaboot yu nekk bitim réew ca Italie ci région bu ñu naan région Emilia ka fa daayira mbooloo ma fa nekk fa tabaarakallaahu ci góor ak jigéen ku ñu naan suñu frère alxaaji Ablaye Fall jiite leen suñu jigéen soxna Xadijatu Jóob yàgg nañu bëgg jàppale Fass Diacksao ñu am ambulance ak suñu benn doom di alxaaji Pape Seck di doomu doomu Alaaji Seck mii docteur ci Pire ak ñañ ko bokkal defe naa ni ambulance boobu sotti na dafa am yeneen matériel ak seen partenaires yi nga xamante ni ñoo leen di jàppale ci loolu defe naa ni am na lëf luñ ci fàgg lu am solo fii ñu toog di wax yaakaar naa ni conteneur ambulance boobu ak la mu war a àndal def nañ ko ci conteneur ba teg nañ ko ci bateau mi ngi ñëw loolu tamit ñu ngi koy séentu ak jàmm ah bu ñëwee. dina nek xewal fi benen buñu am tamit bu jóge ci état bi buñ ko téye fi ndax tund wi yaatu woon man na dem kuul man na dem ngaay man na demat jàppale hôpitalu Tivaouane wala fenen fu am poste de santé ci ci ci gox bi ndax yàlla dafa yaatu ba nopi yaatal su ko defé dal bokk yi lool information yoyu lañu bëggoon jox wa Sénégal fiñ ci tollu ak liñ ci jotta dox ak li ci so jot a sotti ak li ñuy yaakaar dina agsi ci ndimbalal yàlla yàlla nañ ci yàlla boole dimbali ñu ngi ñaan autorité yi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw yoon yi muy douane muy gendarmerie muy police ak homme de tenue yi nga xamante ni ñëpp seen liggéey màcc na jëm ci loolu ñu dimbali leen ñu assisté bu baax ni ñu koy defee at mu jot ak beneen xew-xew bu dul bi ci réew mi jàppale askan wi pèlerin yi nga xamante ni ñu ngi jóg di ñëw pour fekk si bokk ak ñun bés boobu ñu ngi leen ci gërëm ci lu weesu di leen sant waaye ñu ngi leen ciy ñaan jaarale ko nag ci suñu sous préfet bi nekk Mérina daqaar waaye jaarale ko itam ci suñu préfet bu baax bi di xaaji Makan Mbeng waaye jaarale ko ci xaaji Mouhamadul Moustapha Ndaw di suñu gouverneur de la région mu aw ci ministre de l'intérieur dem ba fa mu war a àgg mu àgg fa waaye di ñaan itam njaboot gi ñëw nañu mel nañu war a mel la ñu war a indi te mu yelloo indi mën nañ ko indi bu kenn indi lu ñuy tere waaw loo war a indi tamit am ci ñaari xel fexeel ba gisanteek autorité yooyu nga inform nga jël information ci ñoom loo war a indi sàkku ndimbal ci ñoom lu ñu la ca mën a jàppale nga def ko waaye daal du ñu gënal indi loo xamante ni ci yoon wi du mën a agsi ba noppi xaw a tardeel liggéey bi bi ci ëpp solo mooy ñaan transporteurs yi ñu yombalal ñu liggéey bi yombalal ko clientèle bi na ñi nga xamante ni ñoo amee daaba yi oto yi muy chauffeur yi ak apprenti yi leen di jàppale daw ndànk ak seeg jàmm fekk fi jàmm pareeg jàmm delloog jàmm fekk jàmm yal na leen ko yàlla defal li ñuy ñaan yàlla daal moo di lépp loo xamante ni safaan la yàlla nañ ko yàlla daqal daqal leen ko ñoom itam lépp loo xamante ni ak càmm la jàmmu la ak fegu la kaaraange la yàlla na leen ko yàlla defal defal ñu ko ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi def fi ndalte yokk koom-koom bi xol yi dëppoo ñaan jàmm jooju mu dem ba ci sous bi ñaan ko mu dem ci àdduna fu safara di tàkkee yàlla na ko yàlla fay mbokk yi na ñëpp di wax jàmm di ko ñaan jàmm ci la lépp xaj gis ngeen sous-région bi ni mu yëngoo Sénégal yàllaa ngi fe ndalte jàmm jooju nañ fexe ba conserver ko waaye mbay ci sa wewu tànk waaw wóolonte bëggante soppante jàppante jàppalante waaw bu jàmm laloo rek lépp lu war a ñëw dina ñëw te lu ñëw dina yomb dinañ ci mën a jariñu jariña ci kàddu yooyu la ñu doon jotal ñu ngi jéggulu bu baax a baax delluwaat di gërëm suñu mbokk yi njaboot gu tedd gi di liggéey ci wàllu presse di leen yóbbante nuyoo ca kilifa ya di len ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan yàlla nañu yàlla boole nangul hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh